سرى طيف معا يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام mbokki taskatu xibaar yi ñëw fii Tiwaawan ñëw fi ngir bokk gu ñu bokk ci liggéey bi nga xamante ni liggéeyu Sénégal la ku di sénégalais am nga ci cër boroom kër gi it di kenn koo xamante ni mën naa wax ni dafa boole boot Sénégal yëpp mu di Cheikh Seydi El gannaaw moom njabootam yi nga xamante ni moom la njabooti yëpp doore ko ci Cheikh Seydi Aboubacar Cheikh Seydi Ahmed Tijane yi nga xamante ni tey moo leen fi nekkal Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour ak El Hadj Malick Aziz mi ko fi teewal ak nag seen rakk yëpp usra malikiya ala kaafati furuiha tey ñoom lañu teewal di leen jotalal seen dalal dalal jàmm wan ni fii ngeen ñëw seen kër ñi ngeen fi fekkit seeni bokk lañu li ñuy def ak ñun ñi fi nekk ak yéen ñi fi ñëw yépp benn buum moonu boole takki ndax boroom kër gi di Cheikh Seydi Hadj Malick ni woon man malik gisuma Sénégal gi ku ma fi dul sa baay di sa baayu diine baayu cosaan moo jur ñépp ci diine tabarakallahu kon fii ngeen ñëw seen kër ñu dalal leen jàmm jiital nag cant jëmale ko ci kii nga xamante ni mooy Cheikh Fall ndax moo àndoon ak commission bi yor wàllu communication ànd ko ak ëttu xibaar yëpp diggante RTS bi nga xamante ni mooy ndeyu ëttu xibaar yi ñëw ci wal ñëw ci sud ak limu ëmb yëpp tabarakallahu ñëw ci képp koo xamante ni yaa ngi fi teewu te représenté organe xam naa ci kanam kenn ku ci ne da nga ci feeñal sa bokk ci lii ñoom ñëpp ñu ngi leen di dalal gannaaw bi ñu leen sante góor ak jigéen waa dayratul muxtafina nag ñoo sàkk woon point de presse bi waaye ñu jiital ci nga xamante ni moom lañu jox mu war a saytu lu jëm ci wàllu culture et communication di ministre Mbagnick Ndiaye lii bi ñu ko waxtaanee ak moom daf ko rafetlu yamu ca joxe ndigal yi nga xamante ni moom la war a jox àndandoo boole nokki njabootam ñu ñëw fekke ko kon dañ koy sant ñaanal ko yàlla yan bi nu ko yan borom réew mi teg ko ko ngir mu saytu ko yàlla na ko ci yàlla defal ndam lii nag sunu aada la dairatul muxtafina bureau national commission yi nga xamante ni ñoo ko composé ak man mi nu taamu nu nekk seen njiit ci biir liggéey bii di liggéeyu tarbiya ñooy def at mu jot ñu sooxi daje boo xamante ni dana am fii ci Tiwaawan ci bés boo xamante ni bis bu am solo la mu di bisu Ashura daje boobu itam danu ko jële ci ndigal atam xalifa ba Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour moo ni woon bu nu ba yowmul Ashura nañu ko def mu nekk daje ndaw yi ndawi lislaam bi ndawi tariqa bi ndawi senegaal daje fii ci ëttu maam Seydi Hadj def ko mu nekk dajeb jokkoo waxtaan feddali seen jabootu ci kilifa yiinu yilif te tey ka nekk ca bopp bi di xalifa ba Cheikh Seyd Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yokk ko dëgëral ci atam moom moo ko daan teewe joxe nu joxe ci ndigal moom Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour yàlla dogalee liggéeyam wàcc mu daldi koy jébbal rakkam tey ci ndigalam lañu yëkkatiwaatee lii ci làmmiñu sëriñ Abdoul Aziz ak rakkam yëpp ñu àndaloo di daje bu nu dajee waxtaane sunu mbiri diine waxtaane sunu mbiri tariqa jokkoo jokkoob xamante ndax xamante mooy cëslaay bi tax yàlla bindunu bu nu xamante it déglu tàllal sunuy nokku kilifa yi ñoom it ñu jox nu li nu war a jox dénk ko ci ay dénkaane nu jël ko liggéeyi ko at mi ba at mi dellu bu nu dellusee ci ñoom ñu wax leen li nga xamante ni moom lañu def ca lañ ñu dénkoon loolu moo sabab daje bi nga xamante ni daayira bi ci boppam sababu tarbiya la tarbiya ku ca nekk suba soo xëyee ñu daggal la waar woo war bay mu jox ndigal la ñu àndandoo ca booba yàgg na 1978 la ñu jël liggéey bi def ko nag formaliser ko àndandoo di liggéey ak ndaw yi nga xamante ni ñoom lañu bokkal ci biir tariqa bi ci biir lislaam bi ci biir réew mi taxawal nag ay programme d'activité yoo xamante ni programme d'activité yooyu dañu koy melal ci ñeenti axe yoo xamante ni benn bu ci ne dañu ca tëral ay tëralin di ko topp ba ci njëkk mu jëm ci wàllu ruux doomu aadama jëmmam bu jagee te ruuxam jagul jëmm ji dana matadi moo tax dañ koy boole ak jëfandiku ruux boo xamante ni dafay yëkkati doomu aadama ñaareelu jataay ba ñu di ko def mu di wàllu pénc doomu aadama su dundee moom dong yamale dund ga ci moom gàttal na te dafa war a yaatal te ku war a yaatal pénc daf lay itteel ñetteel ba ñu jëmale ko ci wàllu koom ndax yëngatu gu nit di def bu ko boole waalewul ak saytu koom ndax koom mooy mën a tax li ñuy tuddee euh, ndóol mën a dañ parce que ku saytuwul koom boo moytuwul diine ja ngay doxal dana xajam boo moyetul adduna ja ngay doxal dana xajam ñu ni kon nag nañ ca boolewaale koom di ko saytu ak a jéem fexe ndaw yi ñu ko siqal itti bu ñuy def di ko joyal ndax ndimbal na ca fekk loxol boroom waaye tàllal sunu loxo ci képp koo xamante ni dooley pénc dana la itteel te dooley pénc mooy ndaw nu àndandoo ca di saytu wàllu koom ngir bëgg yéwén yéwénu ngor bu sam parce que ngor bu sàmmuwul ci diine diine du rafet ngor bu sàmmuwul ci àdduna àdduna du rafet ngor bu sàmmuwul ci pénc pénc ma dafay dal di salfaañ loolu moo tax ñu jël ñetti wàll yooyu nag di ko doxalee ak wàll yi nga xamante nag moo nuy may yàlla li mu santaane ngir ñu defal ko ko ñu di ko defaral cës laa yëgle cës laa ko maanaam yàlla li mu bëgg soo ko doorewul ca la mu bëgg yow it li nga bëgg du la ca fekk si mu tax fondement bi diine lay doon pratique religieuse bu mat doxalin wu tegu ci teguwaay ñeenti mbir yooyu moom la kuréel bi jël def ko mu nekk seen cëslaay di ca yëngatu nag tëral ay commission commission yoo xam ñoo koy séq di dox di waxtaan di seet jokkoo bi war ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk fu nekk ci réew mi ci ay gox goxaan ci li gën a jegeñ ba ci li gën a sori nuy àndandoo di tëral tëralin ak ndigalal kilifa yi lu méngoog seen ndigal ak seen joxañ ñu di ko doxal loolu kon bu fekkee ni ndigal yooyu am nañ ko di ko doxal daayira bi itam màndarga lool ci itte itte bi nga xamante ni mooy sababu tënk-tënk biñ ko tënk ndax borom tariqa moo ñaanoon itte nañu ko joyal bu fekkee ni bëgg nañu jokkoo ak sunu borom jokkale kaw asamaan ak suuf ku koy def ku nekk te jiitaloo itte ca yoon wa doo dem tëral tëralin wa Ibrahima Badiane bii ñu gën koo miin ci Ibrahima Ndaw Iran Ndaw nekk ki nga xamante ni moo yore décentralisation loolu di saytu lu jëm ci fi ñu jëm li ñu tegoon ci ay teg-teg tëralin yi di ko doxal àndandoo ci ak ay góor yàlla di ay ndaw di ay jàmbaar di ay commission di ay coordination seeni chef de coordination ñoom ñëpp tey dajaloo pour fas def jataay bii nga xamante ni jataayu fësal wàccaay yi ñu jëm jëm ci liggéey boobu mu mel ni kon loolu ci lañu indee tërëlin yi teg ko waaye ren yàlla dafa def mu nekk at moo xamante ni at bu particulier la ci nun ndax dañu dugg ci yoonu bëgg bokk ci ñiy tax sunu penc fëll fëllal sa penc nag ku koy def ku ne faw nga waajal ki ko war a yi ko war def waajal acteur yi fas yéene bëgg fëlal sa penc bokk na ca doore ak ñoom wàccaayu jikko jikko su jiitoo lu mu dugg couleur ak couleur ba da koy daldi rafetal loolu moo tax ñu ni kon boobu particularité faw ñu bàyyi ko booleeg ñu mu taseeg euh, réew mi ki jiite réew mi moom it yëkkati jëm ci ay xalaat ak i taxawaay yu fax fii ne bëgg njabootu Sénégal buur wutali boobu fëll-fëll yàlla na ci yàlla yeggale réew mi ak képp koo xamante ni yaa ci biir réew mi kon boobu benn la ci yi ñu gis ñaareel ba mu di tëralin yooyu yëpp mbooloo mi dafa bëggoon saa su ne ñëw di présenter bilan Serigne Abdou daf nu ko daan faral di dénk na ngeen fexe ba bu ngeen dee présenter bilan muy lu ngeen def bu ngeen ko defee tàllal loxo dana yell waaye bu ngeen defee ni ah ñun kat dañuy tëral te bilan boobu ngay tëral melul noonu ah, du méngoo ñu ni kon nag nañu fexe ci fii ñu toll wane loo xamante ni dana ko melal ci la mbooloo mi tëral ak waxtaan wu mu waxante ak ñi saytu ci wàllu sante xalaatu taxawal mutuel boo xamante ni li mu tënk yépp dañu fa yéene melal ko ci wàllu jëm ci wérgu yaramu njaboot yi fii ci biir mbooloo mi ak ci biti mbooloo mi ba fu mu mën a yegg ñu jàppalante ko kilifa yi taxawaayu mutuelle boobu dafay indiwaat yeneen <coughs> xalaat yoo xamante ni dana wone ni ab daayira ci ni nga xamante ni noonu lañ ko miine woon bu njëkk mu yem ci daayira rek léegi daayira dafay bëgg yokk as ci wàllu dimbalante jàppalante solidarité bi war ci ay nit yu bokk ay jullit rawatina ay mbokki taalibe yokk ca loolu ak nag taxawaay bi nga xamante ni daa iman dana ko taxaw jëmale ko ci saytu lu jëm ci wàllu tariqa bi jëm ci wàllu diine àndandoo ko inspiration wu kilifa yi nga xamante ni ñoonu meññ jox nu ndigal ci lii tabarakallahu loolu nag commission culturelle bi nga xamante ni moo yore wàllu njàngale mi ak formation bi commission organisation bi nga xam moo yore wàllu ya discipline ak jëm ci tënk njaboot gi ci li nga xamante ni mooy tënk tënk mbooloo mi ànd ko ak communication bi koy wane ndax ku dul wane li ngay def kenn du la xam te bokk na ci di wane li ngay def ngir bëgg ñu xam roy ca parce que ku xam ca la ngay def te muy ngëneel mu roy ca loolu Dahiratoul Muqtafina kon mën na noo wax ni tey occasion la pour nu wane wax waa Sénégal ni leen bis boobu nga xamante ni ñu ngi ko tuddee yowmul ashura di bis fukki fan yi jiitu ci at mii nga xamante ni mooy atu jullit yu bees at mu bees bu jullit yi ñu ngi fas yéene woo ci képp koo xamante ni ndaw la woo ci képp koo xamante ni mag la woo ci képp koo xamante ni góor nga woo ci képp koo xamante ni jigéen nga woo ci képp koo xamante ni yaa ngi ittewoo bokk ci feeñal sag bokk ci pénc te nun senegal la ñu am muy sunu réew te ku am sa réew te feeñaloo ci bëgg-bëgg réew ma mën naa wax ni sag bokk dañ koy tudd rekk waaye du nekk loolu nag nu àndandoo ca woo ci ndaw yooyu kilifa yooyu mag yooyu góor yooyu jigéen yooyu pour bisu Ashura nekk une fête de la jeunesse nekk une journée de recueillement nekk une journée spirituelle boo xamante ni dafay jëm ci sunu melal sunu taalibi ak sunu njabootu ci xadara malikiya ak siddiqiya ndax ku bokk ci barab da ngay feeñal bokk nu woo ci ñëpp ñi nga xamante ni bu bis bi jotee yañu ca digle woon ca bis ba du jar ñu cay yaatal ndax ku ne xam na symbolu Ashura ni ko yàlla dogale waaye symbole yam ca tënk jëm ci melokaanu ndaw parce que Hussein bii nga xamante ni mooy dogitu leeru yonent bi sallallahu alayhi wa ci lañ ko rey du jarit ñu yaatal ci waaye symbolique boobu nga xamante ni jëmmi ndaw lañuy ñuy melal ci bisu Ashura yaakaar naa ni moo indi kilifa yi tànn bis boobu mu nekk nun suñu journée de de rassemblement ci ndaw yi aju ci tariqa bi yëpp moo xam daayira tënk la moo xam coordination tënk la moo xam association wala mouvement associatif tënk la moo xam sax da nga di ndaw rek te xëy na benn kuréel tënku la waaye di wut lu baax di wut lu rafet tax nga ni naa ñëw jokk ca loolu nag kon ñu ngi ko wax ñu ngi ci xaaru participation wu ñëpp waaye rawatina ñi nga xamante ni ñooy waa daayiratul muxtafin participation wu jeunesse su xadara bi yëpp mu di koskaas mu di dawaayiru jigéen yi nicmateeg rahmat yi mutamassikiina bële di jooyal tarbiya ca kër Cheikh Alhaj Aziz Dabakh ñu ngi cay wooyit bépp daayira boo xam moo xam aju ci mutahabbiina yeeg muhsiniina yeeg ixaawa tahabubeeg fédération yi jëm ci fédération Dakar fédération Thiès fédération Bargny fédération Mbao fédération bépp fédération boo xam yaa ngi fi Ndar ba Louga Kébémer Kaolack bépp fédération boo xamante ni yaa ngi yëngatu jëm ci wàllu xadara maliki yëpp ñu ngi lay wax ni bis bi njaboot yi ko sën tënk branche yi composé famille yu Seydi Hadj Malick jëm ci euh, al jamiliya mu di xadara Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil branche u Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour branche u Cheikh Mouhamad al Habib mbooleem njaboot seen xajma yëpp ñu ngi leen di woo ci bis boobu nga xamante ni bisu tariqa bi la bisu lislaam bi la bisu ndaw yi la waaye bisu réew mi la parce que jàmbaaru réew ndaw a koy feeñal te ndaw yi na dañu fas yéene inscrire ci yoon wi nga xamante ni mooy yoonu bokk ci luy defar réew mi lépp luy yàq réew mi bu ñu ko yëgee du moyu ko nekk nag ci teguwaayu am kilifa topp ndigalal kilifa taxawu sa kilifa melal fulla ak itte buy tax sa kilifa it ñu naw ko ndax njaboot dana góorgóorlu ba dimbali kilifaam naweel yokk ci moom ko defee loolu kon moom lay jiite rek sunu magi daara yi nga xamante ni ñoom lañu ñu liggéey bi mu di mustarshidin wal mustarshidat ñoom ñoo aada woon daan ko taxawal ba biñ ñu ko jébbalee nun nu di ko melal boobaak léegi tabaarakallaahu bu nu ko aayee di ko def ñoom ñëpp àndandoo ci ñëw fekke ko sëriñ Moustapha ak lu mu yilif ci daayiratul muxtafina fa tabaarakallaahu ñoom it ñu ngi leen koy yëgal action daara ji nga xamante ni ñoog ñoom ñoo bokk liggéey bi àndandoo ca sëriñ Habib bu Cheikh Mouhamadul Mansour tabaarakallaahu ñu di leen ko ñoom it fàttali ndax fàttelu fàttewuñ ko jëm nag ci biir li nga xamante ni xëy na du ñàkk lenn ti mbokk yu xaaru ay laaj xëy na jëm ci biir bis bi ñu bañ a guddal kàddu gi ndax Ibrahima ngi fi te moom it am na wàll xamante ni moom mooy ki ko war a jàllale bu defee laata nu koy jobbal micro bi ñu wax sant sant ci turu mbooloo mi ci turu euh, kilifa yi nga xamante ni ñoonu jox ndigal ba ñu am sañ-sañu toog fii di wax gannaaw ba ñu feeñalee seen orma ñu ngi sant mbooleem ku fi teew ci jóge ci këru xibaar moo xam ñu tudd la moo xam tudduñ la xëy na bala ñoo jeexal yépp daañu ko melal ba ñu xam ni ñii ñoo fi teew fekke jataay bi sant leen ci seen itte waaye seen collaboration waaye seen cawarte pour ñëw jokkandoo ak nun fii ci Tivaouane Madinatu Nuur nga xamante ni mooy eh, dëkku Cheikh Seydi Hadj Malick boobee nga xamante ni wax nañ ñu ku fi dugg fekk fi ak mucc fekk fi muccule yal na yàlla boole nu ko defal sant jigéen ñi fa tabarakallahu képp kuy journaliste teew fi ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla gën a sàmm sa yoon gën la defal yëkkatiku ci yoonu liggéey bi ngay saytu te may nu tawféex nun ñëpp ñi ko seq ba ñu fekke ko ak jàmm ñëw ci jàmm bàyyiwaale xel it recommandation yi nga xamante ni daayira bi daan na ko recommandé ci ku jëm ci nitu yàlla ak li nga xamante ni moom la méngoo ci orma ci discipline ci ordre ci taxawaay ci pastéef ci dogu ñu àndaloo ak yooya nañu ko daan waxe ci guddi ajjuma yi boole ca respect tenu blanc bi nga xamante ni mooy tenue l'islam ñu bàyyi ko xel ci kenn ku nekk koo xamante ni yaa ngi ñëw ndax bis boobu dañu bëgg mu niru mag ñi ndax mag ñi lañ ko sédde te bis boo xamante ni sédd nga ko mag ñi mag ñi lu ñu am yàllaa ko moom kon yàlla lañu moomale bis bi bésub yàlla la ñu ngi cay woo képp koo xamante ni jabootu yàlla ma wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ko moom mi jiite ak kàddu yu yi ngeen dégg mu wax ko yëpp ak melokaanam dama koy faral di wax ne ko ku yilif ñu la mag ci jikko la defe naa ñii ngeen gis ñëpp ñu toog ku mu ci yónni danga daw du sant sigi du alal du famille bi mais jikko ji ndax wa innaka la ala xuluqin azim jikko moom mooy jiite mooy téye nit mooy dàq nit afa bi ma rahmatin min allahi yàlla nee na yeneen ci bi dama laa dimbali def ci sa xol yërmande moo tax nga xajoo ñépp linta moo tax nga xajoo ñëpp walaw kunta fazzan xalisal xalbi lan faddu min xawlik boo xatoon xol baa nga ñaw jikko dangay xëy ñi la wër di dem ba jeex tàkk nga mujj jébbi sa bopp yow nag kilifa li mu moom mooy faafu anhum wastaxfir lahum kilifa di jéggale di jéllale di ñaanal njaboot ba ci ëpp solo nag mooy bii mu def wa shaawirun fil amri ay nit lu nu bokk dañ koy waxtaani ndax bu ñépp yëgoo ñu yëkkatee ndoo li ñu yëkkati day jóg kon wa shaawirum fil amri bépp kilifa nag boo xam ne du diisoo na jàpp ne rek la muy doxal mën naa bañ a dox kon diisoo dafay am solo muy lii ñu def tey muy concertation alquran am na saar bu tudd saaru concertation muy sóoratu suuree ñu ko nag wa shaawirum fil amri nag mooy lii mbir mii menn mbir la moo xam ne Sénégal yépp ko bokk bitim réew yépp ko bokk adduna bi yépp ko bokk ñun ni ñu koy defee Tiwaawoon noonu la ko adduna bi yépp di organiser fu jullit nekk ndax bis la boo xam ni li ci gën a ràññeeku ndaw lañu ci rey reyin bu ñaaw muy Seydina Hussein dakk boppam roof ci xeej yëkkati ko di wax ne taajabu lillaahi yéemu leen ci yàlla olof yàq ko ne taajaboon di taajabu lillaahi yéemu leen ci sunu borom ñu mën a jël bopp ko toll ni sëtu yonent bi ñu rendi ko te amrum nu ci juus moo dagg bopp Ousseyn dëgg ci dënnam dagg bopp roof ko ci xeej parce que fiir nañu ko fu ne sottiwul ba ñu jekk ko Karbala kon defe naa jaadu na bu jeunesse bi jógee surtout fii ne diriger loolu war a jëmmal bés bi kenn du mën a jam boobu bés ndax bésu ndaw ñi la ndax ñoom lañ ci sacrifié woon kon loolu dafa nekk lu am solo loo xam ne am na góor gu ko daan gàmmoo dafa mujj wéradi ndax reyin yu ñaaw ya ak la ca xew keroog benn sëtu Muhammad day jooy mar lool Seydina Useynu taawu ko ci loxoom ne leen bu ngeen ñu mayul ñun ñu naan sax ngeen may xale bii di jooy am ku xëcc fittam rek dóor bal ci gémmiñu xale bi ne ko isqi haada bu dee daa mar nàndal ko loolu xale ba set guy ci loxo Ousseynou loolaa yëngal deretam na mu ne tey nag lu waaye am jël du bisu mucc hada karbun wa balaaun bésu tey bii musiba rek a mën a amee jàmm daam moo indi karbala karbun wa balaaun donc loola ñu jaayante joxe seeni ruux li yenent bi amoon yépp ci benn ngoon lañu dagg seeni bopp keroog bi ñu ko yóbbulee Yasidum nu mu xaawi aawiya tegal ko ko daf ne bopp bi jëbi mel ni làmp ban la benn waay ni ko kii maamam mooy Muhammad kii mooy doomu Fatima kii mooy doomu imaamu Ali mu ne dagg leen bopp bi teg ko ci boppam lu tax mu koy tagg ci sama wet ñu rendi waaja dagg bopp bi teg ci wetu bopp aussi moo laaj kii mooy kan loolu mu laajoon nag kii mooy kan ñun ñooy wane koo koy kan mooy Ashura ñu dellu si bis bi nag dajale ndaw yi ci àdduna bi yëpp ku tànkam mën a yegg si mu yegg si ku mënta yegg si boo sukkandikoo ci internet bi dara du la rëcc journée bi àdduna bi yëpp a koy bokkandoo ak ñun ñu nag képp koo xam ne jullit nga même bu ñu bokkul diine diine joo mën a ne nga di sénégalais ne ci réew mi nekkoo sénégalais nekk ci beneen réew te réew mi ñor la te diine ñor la invité nañu la bàyyiwuñu gan du musulman du chrétien du benn tariqa képp koo xam ne jaamu yàlla nga rek ci bëgg yàlla rek daairatul muxtafiina ci seen kàddu njiit invité nañ la Ashura muy dixième jour bi bés bi nag day ñaar dafa am taasua am Ashura taasua mooy neuvième jour mooy 31 décembre Ashura mooy dixième jour mooy premier janvier ñun sunu premier janvier mooy dixième jour bi. neuvième jour bi nag gars di ko firee lekk cere yi mooy taasuwaa mooy neuvième jour bi tey boo ko doon def ci weeru tubaab bi comme 31 décembre moom ngay tuddee neuvième jour bi premier janvier nga tuddee ko dixième jour bi mooy taasu ak asura atu l'islam foofu la commencé waaw atu l'islam foofu la commencé ñu jàpp nag ziar bi kon mu war doon talaata di mardi incha allah kon mën nañ ne lundi mooy 31 décembre talaata mooy premier er janvier ci la jullit yi gàddaayoon ci la yonent bi yegg madinatul munawwar imaamu ali doon ko dabi te jeune la ba tey xale la moo gënoon nekk xale yi ci saxaaba yi mu jël màgget yi jël xale yi jël jigéen ñi ànd ak ñoom dabi muhammad gannaaw dafa teggi woon nag te jour boobu avant muy dem Seydi Aji na dañ ko jàpp tëj wa xabasuhu saatan min inaadihim parce que bi yonent bi génn néegam yaa daf ko ne bàyyil ko la uutu ci sa lal nga roccee ko dem ñu defe ne yaa ngi fi bala ñoo xam ne du yow nga yegg fa nga jëm Ababacar ne ko bàyyil ma tëdd fi mu ne ko déedéet kon tuuma day sax naa jël ki ma gën a jege muy Aliin mu tëdd fi Aliin tëdd sàngoo mbàjj yonent bi yonent bi wan ko ndénkaane yépp liñ ko dénkoon ci xaalis diwa moom lii joxal ma ko Ablaye Ndiaye lii Khalifa Niang lii Serigne Moustapha ma ko dénkoon bala ngaa départ delloo ko parce que da doon bañ bu demee ti delloo ko mën nañoo yàq deram te li Serigne bi wax ni nit day leeral si na Ali fanaan fa bi ñu xëyee seen ko mu tëdd ñu defee ni Muhammad la ñu ñori mbàjj mi mu xool leen ñu xund nag ci lañ ko dóor tëj ko une heure de temps Maodo ne ne kasoom une heure de temps la ci lañ ko tijji bàyyi ko ni kii rey ko amul njëriñ gannaaw duma nañ ko tëj ko nañ ko libéré imaamu Ali nag dabi bi mu yegsee tànk yi di nàcc deret ji coono bi yonent bi di ko xool mu yàgg Omar ne Moustapha mu ne ko labbay ko mu ne ko bis bi am na solo buñ ko neenal lañ ko bind mooy mardi bii di ñëw di dixième jour bi waaw mu ne nañ ko saxal yonent bi ne kon ñu ci commencé at mi ngi ne waaw ngi ne ariqu amral muslimiina bind leen histoire mbiru jullit yi gàddaay jógee Màkka dem Madina ci la atul islam commencé fa liñ ko bindee keroog Omar euh, Sina Ali dafa xool tànk yi deret ji sotteeku mu di koy yedd ne ko maa anti illa isbuin demiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti ne mu ne mu ne tànk bi yaa naafeq nàcc gi ngay nàcc yëpp ngis seen la yoon wi ñu jaar muy yoonu yàlla lu la ci dar war nga koo muñ ngay génne deret nii baaraam rek nga bu am yàpp ak yax deret faalewuma la buñ mënoon romb fii fa ma romb ko yow kon nga xam ne ndaw def na lu ne ci bis bi te mooy ndaw li ñuy wax Seydina Ali doomam ñu rey ko ci moom mu sabab ñu bind at mi doomam ñu rey ko ci te lépp di affaire ndaw kon li ko delloo si ci muxtafiina mën nañ ne kéemaan la ndax bi ñu sëriñ Abdi jox turu daayira bi daf nañu daairatul muxtafiina bi aathaaril abaay wal ajdaad dama bëgg ngeen teg seen tànk ci seen bàyyi bay toolu bàyyi ba mu jeex ngeen song seen tooli maam yi bay ko bu leen roy ku dul seeni bàyyi ak seeni maam te mooy maam yu baax yi ak bàyyi te mag ñi ku leen bëgg roy il faut nga jaar fii noonu turu daayira bi ndaw ñi nga xam ne dañ leen sas ñu roy baay yu baax yi ak maam yu baax yi loolu mooy turu daayiratul muxtafin donc kon bu ñu demee ba jamono ñëw ñuy initier lii at yu bëree bëri yi leen wax mu paase ñu di ko doxal ba atum ren mi ñëwaat dañuy lancer appel képp koy ndaw ñaan nañ ko teewaayam waaye képp koy magit woo nañ la ndax bi atharil aba wala ajdad kuy suñu baay invité nañ la ndax dañ ñoo royloo suñu baay ku ñu mat maam it invité nañ la ndax dañ ñoo royloo suñuy maam kuy suñu morom it invité nañ la ndax dañ ñoo wax ñu ànd ak yow roy kon bi atharil aba wal ajdad bàyyiwuñu ndaw ñi bàyyiwuñu suñuy baay bàyyiwuñu suñuy maam ñépp la ñu invité ci journée boobu muy journée boo xam ne nag ki koy taxawu muy Serigne Abdoul Aziz dañ koy ñaanal wér ñaanal ko kàttan damay wax ne ku mat a ndax garab la goo xam ne keppaaram ñépp ngi ci biir te keppaaram yaraaxul keppaar nag bu yaraaxul foo toog am péex da ñaan garab ga dund ñaan garab ga yàgg ñaan garab ga sax su toogi ñun bu ñu orienté ba déwénati kenn ku ne ci ñun da nga ciy dund boo dajee moom wan ko ne pochette bi jeexul mu tibaat dolli ci mag mu mel noonu it baax na ci jamono am ndaw lu lay or mag mu lay orienté ndax woowa jënd ka daala fa hada ku xamul fa nga jëm war ngaa am ko la xamal fa nga jëm moom nag muy ki ñuy gindi ñu boole ñoom moom li ko sëriñ bi waxee sëriñ Mansour ñu waxoon ci jamonoom ne ñu na ngeen góor góorlu su jotatee na ngeen ko def ni ngeen ko daan defee baat boobu moo ko waxoon sëriñ Abdoul Aziz wax ko sëriñ Moustapha moo tax ñu nit ñu gën ci sawar ci di ko def ndax looy kafantu wala nga di ko defantu ba sa kilifa ñëw farataal ko dootu doon kaf ci yow dootu doon defantu def piir lay doon kon fa tabaarakallaahu loolu moo indi liggéey bi waaye ci lu gàtt rek mooy ñu ngi def appel daal bàyyiwuñu kenn ñaan leen itam lu mën a jàll rek ngeen fexe ba sunu appel yi na jàll fu nit ne ci àdduna bi daal ñu ngi lay oo ci bis bi bàyyiwuñu ndaw bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu kenn suba gi it lay doon ñu teel a xëy si def appel ci daayiratul muxtafina jox nañ ko réunion mais ñu waxaat ko fexe ba ñoom ñëpp 9h ñu fekk leen ci arrivé Njaasaan bi foofu la ñuy dajaloo incha allahu taala 11h lu ca topp ñu départ bu sëriñ bi pare ñu euh, teeruñu ñu ñëw dugg si boori 11h midi ñu def ñaanu tamxarit bi suñu paree ci ziar beeg ñaan gi midi dem jëli sëriñ bi. ba sëriñ bi ñëwee muy sëriñ Abdoul Aziz bu ko defee moom mi nga xam ne mooy responsable bi di président national bi mu jëlee kàddu engagement ak gërëm ak wan papaam ñi teew ci bés bi suñu paree nag jébbal sëriñ bi waxtaan bi mu orienté ñu ndax mu mën a am temps large pour mën a waxtaan a ñun kon ñu ngi ñaan muxtafine yëpp heure bi ñu leen jox ci post courant Ndiassane bi ne leen fa fekk 9 nga xam ne lu ñu au plus tard. lu ñu naaje naaje 11h midi ñu mën a génn waaye 9 daan na fa fekk ñëpp ñu ngi koy lancé après ci daayiratul muxtafina yëpp nag di ko lancé appel ci responsable yi ko jiite di ñaan itam ni ko sëriñ bi waxee ustaas yi ci ndigalu Assane si mi toog yore commission culturelle ñu bàyyi xel col yi ak yiw gi ak dikkin bi kaar yi itam ñu bañ ci nekk di coow ñu def ay ñaan ba ñu yegg si su yegg si itam ci poste courant bi ngeen yemale njaboot bi parce que jéggante oto yi jàllit ko defee ñu féetee benn côté kenn ku yor say ndékki di ndékki ngeen féetee benn boor bañ a jege tali loolu daal la ñuy ñaan col gu yiw su ñëwee comporté wu comportement bu yiw léegi laa ko wax rek ñu Serigne Moustapha dañu ànd ak Cheikh Diop ak xalifa Niang ñu koy ndokkeel suñu conférence bi ñu defoon ICAD 2 bi ñu ñëwee xam nga lu ñu wax def ne li ma yéem man fi ngeen ma dalaloon damaa defoon dañ fay jóge dem feneen nekke man fi ma leen di waxtaanale ak fi ma dal benn mu ne mbooloo mu toll noonu yar bee ma jaaxal saalu ikka daa fees del del nee na coow nee na moom discipline boobu ko yéen xam nga ay ndaw fu ñu daje ba ñu ndaw seen discipline loolu atu la te loolu war a tax ñëw mbooloo la beneen ba ci des Pape du si Serigne Abdou dem France bàyyi ko sunu gannaaw ne ko taxawul ma ziar ba ziar ba tasee daf ne li ko yéem la fa daje ci ndaw ni ñu toll. ci déggul noppi leen yar boobu yéem na ko kon lii rek la ñuy parce que l'islam it ku ca bokk lii rek lañ la war a qualifier mu baax kon loolu itam commission culturelle am na ci liggéey bu rëy bu mu ci liggéey ñu gën leen encourage yi gën leen sant ngeen yokk yi itam seen loxo kon fa tabaarakallaa loolu la ñuy ñaande ci ñëwin bi ak dal gu loolu ñu ñu bàkkee suñu kilifa bàkkee ñu ko muy sëñ Abdoul Aziz Pape Maodo si bàkkee ñu ko ñu ngi ñaan itam buñ demee ci bis bu bàkk boobu ñu gën ko yokk kon ñu ngi invité ñëpp ni ko sëriñ bi waxee li ñu recommandé muy sol lu weex muy jiite coordination ñu jiite ndigal yi parce que ñoom buñ ko jiitewul keneen bu defee du ñu mën a wax kon nag ñëpp bàyyi xel lu weex la wax bàyyi xel itam teel a ñëw benn oto it bu mu teggi wuti tànt ba joxe ni ci ay ndigal na ñëpp dem ci convoi bi su ñëwee bu ñu wàccee jubal ci tànt bi yal na yàlla mottali lépp loolu mooy eh, yi nga xam ne waxtaan nañ ko ak commission yi ki yor organisation mu ngi nii di Khalifa Babacar Niang ki yor commission culturel mu ngi noonu di Serigne Assane Sy ñi nga xam ne secrétariat ñu ngi nii muy aas fa tabarakallah kii di Fodi Touré moo yor communication ñooñu ñi nga xam ne eh, Cheikh jot dafa demoon màkk nekku fi waaye eh, soxna asso ngi fi moo yor action sociale soxna rak rakki moo yor nu mu tuddati série féminine donc kon commission yi noonu la toll ak ya ca topp rek ñu xam ne daayira bi kon am na liggéeyu muy liggéey li leen sëriñ bi wax nag day point de presse xaju ci du loo xam ne lu ci xaj xëy na bu demee ba am temps dana ñaan Cheikh Fall ngeen ñëw mu am temps large boo xam ne daf da ngeen koy may mu mën leen leeralal lépp mu mën a jàll ci fépp nit ñi mën ko xam parce que bésu ziar bi mënu ci jàll lépp ndax ki ñu wax loo ngi toog muy sëriñ Abdou lii itam point de presse la xam nañ ni ngi muy demee da ngeen ciy cuqati rek cuqat cuqat xam nañ ko waaw bu ngeen fi jógee nii cuqi fii cuqi fii cuqi fii sànni ko nit ñi mais du lépp ngeen di jàllale waaye na ngeen ñu cuqatil daal suñu woote bi rek waaw bu ko defee yal na yàlla faj aajo yëpp kontaan nañ aussi Cheikh ñu sant ko euh, ndax ak su journaliste yi mu àndal su jotee bu ko sëriñ bi waxee moom téléphone rek mu respecté ko def ko ni mu gën a rafetee woo leen ngeen ànd yi ñëw ñëwin bu rafet def taxawaay yu rafet yan na leen yàlla yokk ba ngeen am seen organe bopp di yónni yéen itam ñu leen di teewal ndax ku ñuy yónni ko ne bëgg nga di yónnee nag yàlla na ngeen dem bay yónnee yéen it ñu di teewal yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def loolu rek lañ ci doon dolli ko defee daal lancé appel ci loolu rek pour ñëpp bàyyi xel bis bi bàyyiwuñu kenn nag bàyyiwuñu kenn du benn tariqa ci réew mi bu ñu bàyyi du benn ndaw bu ñu bàyyi du benn mag bu ñu bàyyi amul bu ASC e. du regroupement du benn association boo xam ne banañ la oo nañu la daal ba bisu Achoura muy mardi bi ñëw dellu si ñaan ñépp ñu ñëw fekkee si ko bàyyiwuñu kenn nag invité kilifa diine yi ku mënul ñëwit woo nañ sa njaboot mu ñëw teew rek bàyyiwuñu jigéen ñi politiciens yeeg parti opposant yeeg tout le monde ñu kenn kuy sénégalais daal acca woo nañ la ci suñu daje boobu di la cinq incha allah kon loolu mooy kàddu yi ñu ci doon dolli ci gannaaw waxu sëriñ bi daf day liggéey rek mais sëriñ bu waxee mënoon nañ ko doyloo ndax ñu ñoo bokk lu ñuy liggéey kon bu jëlee kàddu li mu wax muy li ñuy wax mënoon nañ doyloo rek wax boobu doyloo ko waaye nag liggéey bee ko laaj moo tax ñu tëralee ko nii ti loo rek mooy tax ñu dolli ci li Cheikh ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax xanaa ñu delloo leen kàddu gi bu dee am na yu ngeen di laaj sëriñ beeg yi ci des ngeen laaj ko rek alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatulah